waaw ah voilà yegg na fii moom moom aussi pour voter accomplir son devoir de citoyen avant tout njàngat mi mooy gis naa fi lu dal suma xel ci wàllu organisation amul benn rëq-rëq gis naa fi également ne nit ñi génn nañu massivement pour ñëw voter si te loolu nekk na lu ama am solo li nga xam ne mën nañ ko wax ñun acteurs politiques yi mooy campagne bi def nañ ko ci jàmm jeex na tey jii fi ñu toll mooy nit ñi ñëw voté na nit ñi ñëw jàmm ji nga xam ne xew na fii na continuer ba ngoon incha allah su ma gañee bu soobee yàlla danaa leen jox rendez-vous à ci sama permanence pour que ñu mën a tàllal loxo ñëpp te ma fàttali ne bu ma gañee incha allah juróom-ñeent yëpp dama leen fas yéene boole ci liggéey bi nga xam ne fas naa ko yéene ci cinq ans yi di ñëw. monsieur ministre kenn ci kandaay yi muy Alpha Bayla Gueye nekk candidat PS wax na ne am na ay coalition yu jëlee ay ay électeurs Guédiawaye andi leen fii ci ci ci commune Mermoz Sacré-Cœur cité na nag ñaari ñetti centre de vote lan tontu ci waaw xam nga man nag man nag dama di kilifa. te du wax lu ma amul preuve li ma mën a teg sama loxo rek laay wax donc dama jàpp ne daal li ma amal solo fi ñu toll nii mooy fexe ba waa Mermoz Sacré-Cœur yëpp génn ñëw voté su ngoonee ma gagné loolu laa leen di loolu daal moom amal solo salaamaaleykum. ki ngeen dégg sànq moom mooy euh, Zador Mbaye ñëw na euh, vérifier ba xam élection yi mi ngi dem mi ngi daw ci ni mu ko ni nga xamante ne moom la ko moom la ko moom la ko bëggee muy tranquillité ci paix aussi xool aussi en terme de matériel ba xam lépp mat na am déet gis na ne macha allah sax lépp mat na.